bonjour ah, maa ngi tudd Cheikh Ahmed Tidiane Thiam di président plateforme euh, Pikine moo ñu ñor. Euh, euh, waaw ñun ay doomu Pikine la ñu te fu Pikine teew rek dañ fa war a teew te cause bi nga xamante ni moo waral marche bi tey cause bu noble la muy problème mu préservation dignité humaine ñun ñëpp doomu aadama bu ñu génnee àdduna fii la ñu andi suñu mbokk ñu ngi fi tëdd ah, ku ci nek nak li ngay ñaan yalla moy bo fi ko nga jégué sa mbokk 150 eh, mètres carrés pour deuk 200 mètres carrés pour deuk neex na lool way nañu xamni waaw lu mu bari bari fii ak eh, fukke ak waaw ah juróom fukk ak ñaari at ñun pay gennatu la ta ku ci nek it lii mooy doon sa dernière demeure dernière demeure bi nak lu ma tas sàmm la eh, proactivité dafa am solo et ordre de priorité dafa am solo ci lu ne def maison de la jeunesse ainsi de suite Il y avait un mandat pour ça mënoo génn nag hors mandat vraiment nekk ci période boo nga une période bu gàtt la nga ne ah da nga fi bëgg a def lii ak def fii def ça ne relève pas d'une décence d'une décence vis-à-vis des populations donc moi, ce euh, li tax a jóg ñun accompagner la accompagner population bi parce que nous la bu ñu ñun ñëpp ah. waaw parce que bu ñu bay superposer ay morts lu doy la

et surtout demander donc à l'autorité locale de gëna population c'est important waaw population bi li ci parce que quoi qu'on dise la souveraineté revient au peuple la population très sincèrement c'est des gens extrêmement éveillés et responsables ce c'est que des jeunes c'est que des jeunes du benn option politique nous ñun ñëpp